naan bikum Ousmane Sonko nee na léegi xam na lu leer nañ ne fañ koo bëggoon a faat ray ko fukki fan ak juróom benn ci weeru mars ba mu waree dem tribunal ca xotom ba nekkoon ca biir xoto ba kenn ci ñu bokkoon ca takk der ya fa ko pompoon loo xam ne ngir faat ko la ci vox populi Ousmane Sonko ne biñ ma ko pompee sama yaram wi fa takk ci yére yi léegi fañ ko yóbbu woon bitim réew ci ay labo ngir ñu xool xam liñ ma pomp lan la fi mu toll nii nag résultat yooyu fa génn jot naa ci waaye la ca nekk mooy pomp fay faat doomu aadama te mooy yéen a kaay dëggal ko na résultat analyse yére Ousmane Sonko ya ñu pompoon résultat yi génn na ba tax Ousmane Sonko fafaa ñaawlu faat gi ñu ko bëggoo faat jaare ko ca liquide boobu ñu ko pomp yéen a kaay bi na hee mbiru liquide boobu yëngu na fi mu toll ni de am na lu ci bees de ci indépendant yéen a kaay moom Ousmane Sonko fa xam la ne fay porter plainte ci wàllu yoon ca bitim réew ak wàllu politique ndax loolu ñu ma pomp xamaguñ fi mu toll nii lan la nar a defi ji ci sama wér-gi-yaram ndax lañ ma pomp moom fay faat doomu aadama turbine yéen a kaay ne li mu wax fa garaaw boobu ba léegi moom Ousmane Sonko waxut ban laboratoire bitim réew ñoo analyser ba joxe résultat yi fi mu toll ni sénégalais yëpp ngi toog di xaar yàkkamtee gis résultat analyse yu Ousmane Sonko yooyu ci indépendant yéene mu mel ku leen di tontu moom Sonko na leen faa bëgg ngeen xaar rek du yàgg dara faay xamal janok taskatu xibaar yi leeral lépp ak yeneen mbir sax ki yor kàddu gouvernement bi ci vox populi nee na ko man faa ñaawlu loolu nga wax di leen jéem a empoisonné leen waxuma ak en direct ci téléphone yi ak média ci seen kanam le regard yéen a kaay mel ni ku naan ko gis ngeen inspecteur Sonko mii fa mel ni jàpp na ñu ko bëggoon a faagaagal de ndax nee na maa nga ya le quotidien yéen kaay ne man faa foog ne Sonko fay testé justice bi yor yor kaay na ca geneen wàll ga moom Ousmane Sonko fa xamal lancement door fukki projet ak ñaar yu mag lépp ngir suqali liggéey yaakaar bi ñu bokk express yéene kaay di ñu xamal na njiit réew Macky Sall loxo bi mu tàllal ku jigi ngir ñu waxtaan fa mel ni daal gaay xoromaluñ ko te boo ko seetee fa mel ni daal dialogue politique boobu Macky bëgg mënta nekk ndax ku jigi moom xalaatuñ ko sax réew mi yéene kaay na ko pourtant nag réew mi ba léegi ma ngay insister de na fa bëgg ñu waxtaan la ca wax nag ci mbiru dialogue politique boobu moom Mamadou Diop Decroix ma ngi ca l'observateur yow ak moom moo gën a nekk ak njàmbarte tollu sa moroom ay xeer ña nar a sànnante xeer nag mooy njiiti mi Macky ndax seen bureau soow ma fu mu tuur nañ ko ndax fa karaj yàqu forox wal fajir yéene kaay ne faa di defal bilan seen kàndoo ñoom ñaar si du quotidien ne élection 2024 yi gaa ngi nas ay pexe rek ku nekk ak say fiem njiiti réew Macky moom fay bokk wala du bokk candidature ba léegi lee tuut yi firiwut leen Ousmane Sonko ca yoon wa Idrissa Seck Khalifa Sall ba ca Ablaye Wade mi nga xam ne mooy pënu secours ndàngaan mi dina bàyyi fa lay liggéey ca pharmacien ba moom mi nga xam ne RP la nekkoon ca ay jamono ginnaaw bu mu taxawalee bi fa càmbar réewum Sénégal ni muy doxee jafe-jafe askan mu dem nemmeeku leen ci la nasee ab programme ngir suqali Sénégal jaare ko ci defar jikko yi ak yeneen yi ni mel l'évidence yéen kaay ne démb fa tabax ab marché moom docteur Fall ca Boubacar mi dina bàyyi nekk ca diwaanu Ndar bañ koy daloo nag ca la sampee ndëndëm waaye tamit ma ngay kuy sénégalais am droit ci bokk ci wote bokk buñ fi xañ kenn ay droit am ñaawlu na coono sénégalais na fi mu toll nii na benn bokk yaakaar ba tey ci l'évidence yéen a kaay bi ñu xamal na fi mu toll ni Sénégal journaliste yi fañ leen di rëbb lukkat jàpp tëj kaso moo fi xew de ayaw seetal Babacar Touré bu kéwloo gars yi teg nañ ko loxo gardaaw yi Moustapha Diop bu wal fajri moom it ma ca yoon wa ndax tey lay wuy ji ñeneen ñu nar a wuy ji niki suba mooy député yi assemblée nationale bureau ba la ñu woo bés bi yéen kaay ñu ko xamal léegi ko yéen kaay ne ñetti weer yoo xam ne fa ñoo nekkoon vacances ñoom député kon yëf na Le Soleil yéen a kaay di ñu xamal dogal yi njiit réew Macky Sall jël lépp ngir ñu gën a ñoŋal wàllu formation professionnelle wàll yoon yi recensement yi ba ci fonction publique yéene kaay bi ne Abdoulaye Diouf Sarr ki fi nekkoon jëwriñ ji ndénk wàllu wér-gu-yaram njiitara Macky Sall fa koo falaat beneen poste bu bees te mooy directeur général bu FONSIS tàggat yaram Man City dëgg-dëgg xajut ci Arsenal démb fa koo mbuqi ba Arsenal tàlli ña rek 4-1 tout mu ray ko te xaw na yoonu jël championnat ba moom Man City Barcelone ay waay mbuqi nañ ko démb waay fañ doon reetaan waa Real yi waaye démb fañ leen mbuqi ñaari bal ci benn ñoom waa Barça yi donte championnat ba moom ñoo koy jël stade Mané nag ak Bouna ñoom ñaar rek ay xëccoo seen championnat yi de les si ko yéene kaay di ñu xamal ne Aziz Ndiaye bi fi nekkoon promoteur ma nga ca ay mbir garaaw fa xam problème yaw seetal mbiru ñetti milliards ak juróom-ñeenti téeméeri millions ci engrais coow ko topp moom Aziz Ndiaye nag ak waa juróom aale rakkam Masata ak Ali Penda Diouf ñoom lañ vise ci affaire bi procureur sax fa sàkku woon gars yi teg leen loxo inculpé waaye ba léegi defuñ leen dara de amuñ benn jaaxle ci affaire bi ki am jaaxle nag ndax fañ koo teg ndaw si daal fa doon seet ñu feebar ci internet bi di leen bindal ay garab di leen faj daal ci gàttal ba pare di jaay ay garab te ndekete yoo ndaw si daal benn diplôme mu médecin amut ko ca kanam takk dere la ko waxee nee na leen faa doon def formation ci wàllum wér-gu-yaram waaye mujj ba ko continuer takk dere na ko waa kaay baax na fañ koo teg loxo ak assistant ba ka ko doon jàppale ca seen appartement bañ defoon labo fa lañ leen jàppee waa ma ne non gis nga sénégalais fa dëgër fit yow doo médecin amoo diplôme ngay faj ay doomu aadama di jaay garab loolu foog ngeen ne jàmm la fa ñoo benn maçon mu bindal